mbokk yi mooy wax ak yéen ci situation bi nga xam ne moo xew ci université yu Sénégal yi bi mbas mi commencé ci réew mi boobu ba léegi comme niñ ko xamee président 14 mars 2020 dafa wax nañu taxawal njàng bi ci Sénégal ci école yu ndaw yi ba ci école ci daara ju mag ji boobu mi ñun ñaa ngi ciy liggéey di xalaat naka lañ koy continuer parce que jàpp nañu ne xale yi ñuy jàngal même bu ñu mënatul ñëw ci école yi war nañu des ak contact ak li leen di xam-xam bi leen di jox rawatina ci université yi ci université yi nag gis nañu ne tey situation bi di mu demee ci biir campus bi pédagogique bi ak campus sociale bi dina jafe lool ñu ubbi campus looloo tax gouvernement bi ci ndigalu président jàpp ni ñi nga xam ne ñooy instance académique yi ñi nga xam ne yoon mooy loi 94 79 moo leen jox ne ñoom ñoo am ndogal ci xool naka lay njànge mi di demee ci université yi président ne leen nañu taxaw ñu xool naka la ñuy fexe ba année blanche bu mu am naka la ñuy fexe ba étudiants yi continuer di jot xam-xam bi ñi nga xam ne moom lañ leen di joxe fexe ba fii ak diiru 31 décembre 2020 na fekk njàngale mi pare na ci université ci boobu ndogal laa taxaw wax ak instance académique yi ba ma gisee partenaires sociaux yi yëpp muy syndicats yi muy étudiants yi muy euh, jàngalekat yi seen bopp ma ne leen nañu xool ci seen instance yooyu def situation bi xool fan lañu mën a naka lañuy mën a taxawee ba année bi du blanche loolu diggante onze ba dix dix-neuf mai deux mille vingt ñoom instance académique wu Sénégal yëpp université Sénégal yëpp réunir nañu ci point yooyu ba mu des université Assane Seck bu Ziguinchor ci li ñu mën a jàpp ci li nga xam ne moom la instance académique yooyu ñi nga xam ne ñoom ñoo am dogal gi li ñu wax ñoom ñëpp jàpp nañu ne année blanche du am année blanche warul am loolu nag ñu ngi ko teg ci ña ci ñetti fan ci ñetti yëf lañ ko teg bi ci njëkk mooy que ni njàngale bi commencé woon na ci université yi et li ñuy wax premier semestre parce que master système LMD système LMD bi ñuy taxawal njàngale mi du ci ab mais ci semestre la semestre bu ci nekk fukki semaine la ak ñaar muy at bi bu ko dajalee muy ñaar fukki semaine ak ñeent ba ñaar fukki semaine ak juróom ci la ñuy jàngale ci la ñuy defee examen ci semaine bu njëkk bi li ñu gis ci université yi premier semestre bu njëkk bi li ñu gis ci université yi mais ñaar situation la benn situation bi nga xam ne moom moo ñu dajale filières yi parce que du université mais filières yi ci yenn université yi nga xam ne seen njàngale mi xaw na tardé ñooñu bu ñu leen gisee mooy ñetti semaine moo leen dese ñu pare semestre bi ci njàngale mi ak ci évaluation yi yeneen yi ñoom ñëpp gis nañ ni pare nañu semestre bi ba am na ci ñu nga xam ne commencé nañu dugg ci deuxième semestre. kon gis nañu loolu buñ ci taxawee gis nañ ne premier semestre bi sauvé ko lu yomb la parce que bu fekkee ñetti semaine la te ñetti semaine yooyu gis nañu ne jàngalekat yi si seen taxawaay loolu tamit beneen fànn la bu am importance ak ni ñu taxawoo ak li ñu mën a def ak flexibilité yi nga xam ne mën na am ci LMD mën nañu fexe ba même deuxième semestre premier semestre bi dañ koy jeexal ci Louga mais deuxième semestre bi tamit dinañ ko jeexal ba pare nañu sukkandiku. ci njàngale bi ñuy wax télé enseignement li nga xam ne dañuy jàngale ci distance bi loolu nga xam ne jumtuwaay yi ñu am tey dina ko permettre enseignant bi jàngalekat bi day jël li muy jàngale dugal ko ci benn plateforme bu nga xam ne étudiant bi fu mu nekk ci Sénégal bu amee connexion internet mun na ci dugg loolu tey bu gisee ci université yi mun nañu wax ne juróom téeméeri cours yu nga xam ne waroon nañ leen dugal juróom ñeent fukk yi ak juróom ñu ngi ci plateforme yi ba te commencé nañu tamit di jàngale def ci cours yi ci mais tamit di jàngale mooy di taxaw ak étudiants yi ñu nekk en connexion ñuy wax di jàngale loolu tamit am nañu ko commencé te université yi jàpp nañu ne enseignants yépp nañu taxaw ci fànn boobu te dinañ ci taxaw loolu nag dàqul que ñu dinañu ubbi ji université parce que gis nañu ne examen yi lu dul bu fekkee ne université am na université ci filière yi nga xam ne gis nañ ne mën nañ ko organiser ñun jàpp ñu lool dañoo jàpp ne examen yi dañuy xaar ba université bi ubbi ñu organiser ko pour que tam loolu yëpp nag ñu def ko fekk ne année yi day jeex avant le 31 décembre 2021 ñun ci suñu gis-gis suñu xalaat loolu wax ne day jeex avant le 31 décembre 2020 2020 ci suñu gis-gis ak suñu xalaat lu mën a nekk la te lu nga xam ne ñun àttan nañ ko lu dul ci université Ziguinchor bi nga xam ne gis nañ ne am na situation bu nga xam ne ñun bàyyi nañ ci xel lool ci gouvernement bi am na mesures yu ñu jël mais ñu ngi ñaax jàngalekat yi étudiants yi ak partenaires yëpp ñu taxaw assumer seen responsabilité ngir askan wi ngir réew mi ñu xool naka lañuy ñuy génne ci situation boobu ba fii ak le 31 janvier 2021 ñoom it ñu pare seen année académique li jëm ci réseau des instituts supérieurs d'enseignement professionnel ñoom jàpp nañu ne ci weeru juin bi dinañu reprendre seeni cours fii ak septembre ci téléenseignement la ñuy jox bu septembre commencé ñu commencé seen travaux pratiques ak stage ci entre ci entreprise yi ñun gouvernement bi taxaw nañu pour jàppale étudiants yi pour que télé enseignement bi ni muy defee ñu dugg ñu am ñu def ko ñu mën ci jot ci ni mu gën a yombe maa ngi ciy liggéey ak le ministère euh, bu chargé de la des télécommunications. bu nga xam ne sax tey war nañ leen ñun jébbalay information ñu xool naka la ñuy yombalee étudiants yi ci liggéey boobu. adhéré yi tamit mu ngi jàppale université yi pour jox leen doole nga xam noonu la mën a liggéey en tout cas ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp. di ñaan yàlla yàlla ñu yàlla génnee ci mbas mi fekk ne tamit suñu université yi suñu njàng mi ak économie réew mi yëpp day dellu ci liggéey bu taxaw asalaamaaleykum